ngoog yegg si nañ ci ñu fas yéene leen ko jukkil Walf Quotidien la ñuy doore xibaaru yéene kaay candidat à élection présidentielle 2024 kan mooy doon favori ci waa Pastef yéene kaay bi ne Ousmane Sonko bokkam ci yile wote wóoratul ba tax na faw ñu xool keneen kañ fa mun a teg ca ña ñuy séentu ci yooyu lee tànneef diggante Guy Marius Sagna diggante Birame Souleye job ak Diomaye Bassirou Diomaye Faye ana ku ci doon favori yéene kaay bi di Walf Quotidien xëy duñu ko dégtal bés bi le jour ne élection yooyu le bokk na ci usman Sonko mi ñu njort ne du ca bokk ba tax na plan B faw euh, Pastef am ko ci jamono ji ndax moo fi sës ndax ci plan B boobu le mun nañ cee séntu biram Souleye Diop wala boog Bassirou jomay fay bu dee nag plan G Guy Marius Sagna lañ cey séntu yéene cabinet tey Ousmane Sonko am na jafe-jafe ci euh, numéro deux euh, bu fekkee ne bokkul ci yile wote ndax am na keneen koo xamante ne sóor na ko ngir mu mun a dagaan baatu askan wi yéene cabinet di sursaane ci jamono ji bokkam sax wala boog mun a wote ci élection yi ñu jëm wóoratul ki nga xamante ne mooy maire bu Parcelles Assainies ah, teg nañ ko loxo ba ba léegi bokk na ci sax am na beneen mandat de dépôt goo xamante ne moo tegu ci ndoddam yéen kaa bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk ni ki altine eh, demb lañ ko eh, jot dégluwaat yéen kaa bi xëy ñu ko leeralal lu tax ñu eh, tegaat loxo maire bu Parcelles Assainies Jamil Sané mi ñu yóbbuwaat su mandat de dépôt bi mooy ñaareelu yoon mu ngi ci yéen bi di Source A ñu dégtal ne lu mun a xañ euh, Karim Wade mu bokk ci élection présidentielle yu 2024 euh, lépp mun na tuggee ci baay ja di maître Abdoulaye Wade mi nga xamante ne jotoon na càmbar constitution bu Sénégal euh, juróom-ñaari fan ci weeru janvier 2021 soxaloon constitution bi doon xamle ne amul kenn ku mun a dagaan baatu askan wi laaj réew mi te war nga mun a am benn nationalité donc nga war a mun a am nationalité sénégalaise ngir mun a dagaan baatu askan wi te ji nag Karim Wade mi ñu ne am na ñaari bokkam ci le woote wóoragul mu ngi ci yéen a euh, euh, bi di le euh, témoin yéen a bi di turbine mu ngi ñuy dégtal tànneefu coalition Benno Bokk Yaakaar bokk na ci saay bu njiitu réew Macky Sall tànn ak ku mu munta tànn APR mun na fee jaaree tas ngoyo ngoy doomam yéen a bi ne charte bi njiitu réew Sall xam ne sax ne candidat yi dañ caa war a tënku am na ñu koy tàmbale salfañe yéen a ne bu ñu deful ndànk ci le woote vote sanction mun na am ci mouvance présidentielle bi mu ngi ci yéen ci euh, turbine yéen a kaay euh, geneen le mandat mu ngi ñuy dégtal euh, lu aju ci libération Ousmane Sonko ñi nga xamante ne ay kàngam lañu borom xam-xam lañu ay universitaire tenku ci ab kuréel gañu ne jot nañu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram nañu fexe ba sàmm démocratie gëfu ne ki nga xamante ne mooy ña bokk ci googule kuréel kii di Alioune Tine ak ay ñoñam sàkku nañ sax njiitu réew Macky Sall mu sàmm jàmm ji fi ne yéen yooyu les intellectuels ñoom ñunu ak ci tamit eh, la sababoon réewum Sénégal eh, fa mu ne woon ci jafe-jafeek yàqu-yàqu ak i tamit fitna ba léegi kenn déggu leen ñu toog ba eh, tey jii ñu teg loxo Ousmane Sonko ñu doog a yëglu doon lu jaaxal lool mandat yenn a kaabi di critique mu ngi ñuy dégtal lu aju ci élection présidentielle yoo xamante ne mun naa bett ñu bëree bari Idrissa Seck la muy nas ci tekk tekkaaralam giile bokk na ci tamit njiitu réew Macky Sall la muy nas si bañ a tànn gum candidat bu coalition Benno Bokk point actu mbirum coalition yi sax mun na am jafe-jafe eh, ci la wote Idrissa Seck ma ngay xool ñamu war a mun a àndal wàllu Sénégal moom eh, bu Karim wadd ba léegi njaw a ngi wéy di desi xambin ci eh, téeméeri milliards ak fanweer ak juróom ñett ya tënk Karim Wade te war koo fay pur ak Pastef Euh, seen euh, diggante ak waa taxawu bu Khalifa Sall neexatul ba tax na derbi la euh, ci yooyu de kuréel yéen kab bi moo ñu ko yëggee 24 heures ne bokk na ci 2024 ana naka la war mun a demee ba tax na dialogue gi fi woon ndax mun na jur njeexital ci yooyu de wooteem déet ay observateur amal nañ ci taxaw seetlu ne bu ñu deful ndànk yi lee woote mun naa am jafe-jafe yéen a kii di euh, Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal koomub Sénégal ak émergence gañ ci doon séntu jafe na lool ñu mun ko jot may sababu euh, di euh, jàngalekat gëstukat xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom ne fukki at ak ñaar yoo xamante ne daanaka fu ñu doon séntu plan Sénégal émergent yeggu fa jurul mbégte ci askan wi may sababu moo ni waxee yéen a kii l'info ne projet futur port bu Ndayane aéroportu Ndakaaru daanaka merloo na waa Jalaaw euh, kontaanuñu benn yoon ci doxalinam ñeel euh, por bu Ndayane yéen a kaabi di euh, Le Quotidien mu ngi ñuy dégtal lu toll ci téeméeri immigré ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne daanaka dellusiwaat nañu ndax juróomi fan yoo xamante ne ña nga woon ci waaxu Mauritanie ñu ngi doon xaar tey ji ci maanaam talaata ji ñu delloo si leen fi nga xamante ne mooy Ndakaaru mu ngi ci yéen a kaabi di Le Quotidien maire bu euh, Padoua Maimouna Dieye mujjee na am liberté provisoire bàyyi ndigandiku wergu yaramam moo ko mayatul mu toog ca kaso ba yéen kabi di l'évidence mu ngi ñuy dégtal lu ci wàllu réseau téléphonie euh, téléphonie mobile ca Touba Mbacké Abdou Karim Sall njiital ARTP ma ngi cay dalal xelu xalif général des Mourides euh, di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yéen cabinet ci googule màggalu Touba Mbacké point actu di ñu xam lekk li nga xamante ne màggal gi daanaka wàccaay gi lépp yemb na quotidien ne màggal googee ku ko wax euh, suñu xel dem ci ndox mi ndoxum Touba gi ma ñuy naan daanaka ndox la goo xamante ne am na xorom te neexuta naan te ba tey jafe yaa ngi ne këtt ne jonn euh, ca Touba yéen a kabidi le peuple quotidien ne xasida euh, doon na lu ñoroon lool Serigne Touba ba tax na saay bu màggal jotee ñu bari di bàyyi xel ci xasida yi da ngeen ci teewlu leeral yi na mu gën a yaatoo ci le peuple quotidien yéen a kabidi le soleil tukki gamuy amal ci vacances yi ma nga dem ca île du Saloum ci dëkk bi di euh, Fambine euh, dëkk la gu am taarix lool yéenekaay bi moo ñu ko yëggee Sadio Mané bëgg na itamit euh, déggalaat boppam ci match goo xamante ne club am war na ko am yéenekaay bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk club bu Medina Jaraaf ma ngay wone mbégteem ci coupe du Sénégal gamu gàddu ba tax na Jaraaf wone tina mëninam yéen a bi di euh, suñu làmb mu ngi ñuy dégtal Ama Baldé Gris Bordeaux euh, ganaaw euh, négociation ya ci am CNG moom bokk na ci xam xamle na ne googule combat mun nañ ko dàq ba jëmmi jamono ndax Gris Bordeaux mu waxoon ne tegu ko ci weeru octobre du ngëneel ci moom boo tax na nag CNG mun nañoo fekki Gris Bordeaux ci càkku teefam yemook fu ñu jeexale xëtu yéen a yi ci baat baatu askan wi tënk la woon incha allah daañu ci dikkaat na mu gën a yaatoo